irxal li taybata irxal li taybata la ta umma siwaha fa asaaka an taxza bi ru'yati taha fa iza wasalta laha iktahil min turbiha huwa ismidul aynayni wa huwa jalaha daarul xanaa وكذا الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها هي طيبة تابت لطيب أصولها ومدينة رب سما سماها هي منية الألباب مفتاح الهدى فانهد إليها واغتنم للقاها هي درة بيداء خالشة ترى فعليك أن تسألها فتراها فالعين قرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما أتاها والقلب قد سكن اضطراب لهبه لما رام في البقاء سواها دار الحبيب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 ci ndibalu ndigalu sëriñ Moustapha bu Ceerno Saydi Nuuru ci ndigalu Chérif Ibrahima Aydara at Tijaniya ci Géejawaay bu ngeen déggee lool nag xam ne Tiwaawoon Pël xewleeti na waaye mu xaddam bu mag ba taalibe sëriñ Abdul Aziz si bu mag ba xewleeti na muy Ceerno Abdoulaye Ka muy nag gàmmu Tiwaawoon Pël le 3 avril incha allahu taala eh, ñi ngi ciy woo ñëpp nag rawatina waa adduna bi yëpp nag rawatina it waa Tiwaawoon Pël ci teewaayu imaam ratib ba imaam Alsaan Saw ci teewaayu chef de village El Hadji Boubou Sow ci teewaayu nag autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Tivaouane Pël yëpp ak doomi soxna yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Tivaouane Pël yëpp kon nag woote baa ngi noonu le trois avril incha allahu taala fa nga xamante ni moom mooy école primaire bu mag ba ca Tivaouane Pël euh, dañuy jox nag professeur Babacar mbay mu wax nag ci turu jeunes yi nga xamante ne ñoom ñoo dëkke Tivaouane Pël yëpp environ kon salaamualeykum rahmatullah euh, ci ndigalu imam Abdoulahi Ka ñu ngi jël kàddu yi euh, di jël kàddu yi muy nekk kàddu bànneex euh, di woote ci bésu Seydina Muhammadu Rasulullah euh, Abdoulahi Ka moo woo waa Sénégal woo waa Tivaouane xadara bi yépp bàyyiwul kenn li mu woote mooy gàmmu ren mooy neuvième édition gàmm googu nag ren dafa am particularité parce que dañ ko tuddee kilifa gu mag mu nekk suñu wasi la bàyyi xalifa Gueye di waajuru Cheikh Abdourahmane Gueye euh, bés boobu la ñu woote tey euh, Tivaouane Peulh muy le 3 avril euh, mu nekk bés bu rëy su la présidence du xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour yal na ko yàlla dëgëral yàlla guddal fanam ci ndigalu Muntaha Basiru Mbàkke xalif général des Mouride sous la présidence d'honneur nag euh, xaritam soppeem Chérif Aydara Tijani euh, ci ndigalu Thierno Amadou Ba xalif Thierno Djibi Ba de Mbambilor ak imaamu ratibu Tiwaawan Pël ci biir woote boobu nag ah am na autorité yoo xamante ne ñoo fi nekkal gox bi ci ñooñu ñu ngi ciy cité Omar Gueye ministre de la pêche et de l'économie maritime euh, ñi ngi woo également monsieur Ndiagne Diop député maire euh, di woo monsieur le maire Momar Soxna jëpp di woo responsable politique yëpp ah mu nekk bés bu rëy fàttewuñu nag waa diaspora bi di leen xamal ne ah bés bii bés bu rëy la bésu Sénégal la bésu xadara bi la ñu ngi ci woo xadara tiijaan yëpp bàyyiwuñu kenn famille religieux yëpp ñu ngi leen ci woo yaakaar naa ni chaque année toutes les familles religieuses sont représentées ñu ngi leen di woowaat nag seen bis boobu nga xamante ne Abdoulahi Ka moo ko woote Tivaouane Peulh mu nekk gàmm gox bi nekk gàmm commune Tivaouane Peulh ñàgg ah ci biir woote boobu nag euh, fàttewuñu jeunes yi euh, jeunesse Tidiane jeunesse Mouride jeunesse Khadria jeunesse yëpp ñu ngi leen di woo ci bés bu rëy boobu euh, di woowaat waa diaspora bi xamal leen ne ah gàmm gi dinañ ko mën a seetaan ci Cherif Dabakh TV donc en direct lañ koy teg nous avons le plaisir de prendre la parole, donc juste pour informer euh, la population sénégalaise et celle de la diaspora pour un grand jour, une grande nuit, une nuit dédiée à Mohamed Rasulullah, euh, ici à Théaounpel, organisée, c'est la neuvième édition. Donc pour cette année, il y a une particularité. Euh, la particularité, c'est que le Gamou, vous aurez l'occasion de le suivre en direct sur la chaîne TV Chérif Dabakh TV. Euh, également, nous appelons toute la communauté religieuse, Tidjane, Mouride, Khadr, à venir massivement assister à cette gamme annuelle qui se tiendra le 3 avril à l'école primaire de Tiawan-Peulh sous la présidence du Khalif général des Tidjanes, Babacar Sy Mansour, sous la présidence d'honneur du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha et tous les khalifes généraux euh, du Sénégal. Donc ce gamo est organiser sous également donc euh, la supervision de M. Abdoulahika, représentant de la famille euh, Tidjan, représentant de la famille Haj Maliksi à Tuaounpol. Donc c'est un grand rendez-vous à ne pas manquer. On lance un appel à toutes les communautés religieuses du Sénégal. Merci. avril euh, bu Tuaounpol programme bi nag incha allahu taala euh, tafsir Abdourahmane Gaye borom xam-xam bu mag boobu ngeen di dégg. mooy fas yéene taxaw guddi ga ànd ak nag xaritam ba soppeem ba Chérif Ibrahima ay dara ak nag axlu kër Cheikh Seydi Hadji Malick yëpp as jibi mbay moomit dana jóge ba Tiwaawoon ànd ak Sidi Mbaay di sëti Moussa Ale Mbaay yooyu nga xamante ni yaa ngi leen dëgg ñoom ñooy taxaw guddi ga ba bët set kon nag dañuy jox suñu baay bii nga xamante ni moom mooy kenn ci kilifa gi di alaaji Pape Ndiaye moom la ñuy jox kàddu gi. asalaamaaleykum mbokk yi tedd yi ak sant. di la yàlla yàlla na yàlla dool ñu jàmm doolu sutura doole ko yow yaatu ban ak barke ah ñu ngi séentu nag xew-xew bu mag ci Tivaouane xew-xew bi nag ah ñu ñaan suñu borom ah yàlla ko yàlla mottali ñu ngi séentu gan yi nag waaw boo defee ah ñu muñ lante ndax genn guddi yomb naa muñ bu dee gan gan moom amul lenn loo xam ne ni ah bu ñu lu bu ñëwee day nettali waaw ah, bu ñëwee nag na na fi gis loo xam ne macha allah du dal xelam pour ëllëg mu mën a dellusiwaat si si si gàmm gi ah gàmm gi nag ñu ñaan suñu borom yàlla nañ ko fekkee ak tal ak ah, ñi ngi ñaan ki mooy bopp bi ki si bopp bi muy Abdou Abdou ah, El Hadj Abdoulaye Ka ñu ngi ñaan yàlla yàlla may may ko nu gudd lool gu ànd ak wér ñu defal ñu ko defal ko njabootam yàlla na ko yàlla yàlla yàlla na ko si borom def si barke Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ah ñu ngi sant ñëpp du gërëm ñëpp. yàlla na yàlla may fekk ak tal. jërëjëf suñu papa alaaji Pape njaay kon duñu jël kàddu gi rek jox ko ki nga xamante ni mooy Adja Fatmata Ka moom it mu wax ci turu jigéen ñëpp. kon subilaay mina seytaane rajim bisimilahi rahmaani rahim ñoo ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu nag jigéenu Tiwaawan Pël yi di leen fàttaliwaat suñu bés bi nga xam ne moom la ñuy def le 3 avril. maa ngi ñaan jigéen ñi defe naa ni jigéen ñi dañ leen di fàttali rekk waaye pare nañ ko bu yàgg ndax ku ne 3 avril rek xalaat nga ne gàmmu Tiwaawoon Pël yegsi na kon maa ngi ñaan jigéen ñi ni ñu daan teeroo gan yi nañu gën a góorluwaat takk digg yi génn néeg yi génn kër yi abal ko gan yi gan yi suñuy gan lañu te gàmmu bi defe naa ñun jigéen ñi ñoo ko yor ndax ñooy togg ñooy recevoir gan yi ñooy bisimila gan yi ñun ñoo leen di gunge kon nag nañu góor góorlu bu baax génn kër yi jox ko gan yi man loolu rekk lay wax jigéen ñi maa ngi ñaan nag suñu dëkk yi nga xam ne ñoo ñu wër woo nañu ñépp ci gàmmu 3 avril bii nga xam ne suñu gàmm la gàmm ñépp la gàmm dëkk bi la képp ku naan ak asadwan laa ilaha illallah ngay jigéen ñoo lay woo ndax ñun jigéen ñi lañu bëgg ñu gañe ci bés bi ndax jigéen ñi ñoo yore bés bi jigéen ñi ñooy togg ñooy recevoir gan yi kon nag yéen jigéen ñi góor góorlu leen waat gàmm bi nga xam ne suñu gàmm bi nga xam ne ñëwaan na maa ngi woo ñépp mënaan naan ñépp nañu dalal gan yi nañu muñ ñu góor góorlu toggal gan yi lu neex ñu lekk ñu teel a génn ci tànt bi ñu teel a génn ci suñu néeg yi ñu dem ci tànt bi ñu teeru gan yi onon koreeji men fulɓe surtout tiwawon pol naaɓe eɓe koɗani hay tiwawon pol pol a jogiiɓe koreeji tiwawon pol a nanatɓe tiwawon pol fof mbeni min ɗo tiwawon avril enen tout kaɓoɗen ha tiiɗen garena gammo he gammo ko gammo men surtout noon hen mbo wiye gamma fulɓe mbeɗa hasbi enen rewɓe heɗen jenwi tabsir gaye kam arata ɗo waxta nana en nanen ko weeli kam ko sirif aydara nden noon mi noddi on onon tout kala ɗo pullo won ak ceeɗe taariɗe tiwawon pol onon tout min noddi on a ñalande amen he eyyi ɗum rek leyatnomi hen on jarama jërëjëf mbokk yi mi ngi noonu àllarba le 3 avril mooy gàmmu tiwaawoon pël na ko ñëpp bàyyi xel kon dañuy jël kàddu gi rek jox ko ki nga xamante ni moom mooy ajaa Kumba Ndiaye moom it mu woo ci turu ñi nga xamante ni itam ñoom ñooy autorité Tivaouane Peulh yëpp ak autorité administrative bi yëpp nag. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi mbokki jullit yi kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di yëgle nag bés bii nga xamee ne mooy bésab Tivaouane Peulh bu ñu waxee bésab Tivaouane Peulh ñëpp xel yëpp dem si 3 avril. di bés boo xamee ne sëriñ Abdoulaye Ka mii nga xamee ne moo jiite gàmm gi chaque année ñu di ko def muy fees dell ñoo ngi yow mbokki julli ñoo ngi yow mbokki taalibe yi di woon nag président Macky Sall di ko ñaanal victoire bi yàlla may ko ni ko mayee ndam defal ko fanu gudd ak wér ak encadrement yépp ñun waa Tivaouane Peulh si turu Abdoulaye Ka di ko di ko yëgal bés bi di bésab Tivaouane Peulh ak président Macky Sall ñu ngi la yëgal gàmmu gi sa gàmmoo la di la ko yëgal bu baax di ko yëgal sa soxna madame fay Sall kuy taxawu jigéen ñi kuy jàppale jigéen ñi ñu ngi lay woo suñu bis bi ñun jigéen ñi Tivaouane Peulh ñu ngi koy yëgal monsieur Omar ministre di suñu ministre kuy taxawu gàmmo gi siy jàpp ñu ngi la koy yëgal baax muy bésab le 3 avril bi fii si Tivaouane Peulh di koy yëgal autorités politiques yëpp yi nga xamee ne xel ñoo bokk ñun nag ñoom ñoo bokk gox bi di ko yëgal rak Ndeye Awa Gueye président des femmes de Tiwa de Sangalkam di ko yëgal Ndiagne Diop honorable député di ko fàttali suñu bés bi te xam ne bésam la ni mu doone bésam ñëpp di ko fàttaliku Mamar Soxna Diop maire Tivaouane Peulh di ko fàttali Boubacar Ka adjoint maire de Tivaouane Peulh di ko fàttali Ibrahima Ndoye adjoint maire Tivaouane Peulh ñàgg ñu ngi leen di fàttali bés bii bés bii nag bu ñu ko waxee xel yëpp dem si bésab won Pël di woo Moustapha Mbeng honorable député maire Kër Massar di woo Aly Ngouille Ndiaye ministre de la ministre de l'intérieur ñu ngi koy woo di ko wax ne ko bés bi ñu ngi koy fàttali suñu bés le 3 avril bésam la ñu ngi koy fàttali Moustapha Cissé Lo moom it ñu ngi koy fàttali bés bi di ko wanal ne bésam la ndax ñoom ñëpp ñu ngi leen di fàttali suñu bés bi di fàttali képp kuy autorité li ko dalee kam ba Tiwaawoon Pël ba ñàgg ba Tëngéej ñu ngi woote meeru Tëngéej yi député yi ministre yi ñëpp ñu ngi leen di woo si suñu bés bi. bés bi nag buñ koy wax na ñoom ñëpp nañ dem seen xel si bésab guddi yonent bu tedd sallallahu taala wa maa ngi woo ki nga xamee ne mooy sëriñ Kara Koso Mbàkke astuloo bu Sarsara bu Daaru Musti ak Sarsara di sama sëriñ maa ngi lay woo sëñ bi balay sa buri woo naa Daaru Musti woo Touba woo Tiwaawoon woo ñëpp. bés bi nag seen bés la bëgg naa ñëpp teew si jërëjëf. jërëjëf Adja Kumba Ndiaye di responsable politique di bàjjanu gox moom mu ngeen déggoon sànq muy woo jigéen ñi ngeen xam ni tam buñ ne tànt buñ ne tànt bi jigéen ñee ci ëpp doole ndax euh, ñi ngi joxe seen message nee nañ képp kuy ñëw ci tànt ba di jigéen na nga def déguisement bu weex moom lañu woote taal di jàmm ak salaam. kon ñu jox kàddu gi nag soxna Aida Sy moom it mu waxtaan ci turu daaira yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Tiwaawoon Pël yépp auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw ba ñu sante yàlla julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp eh, di leen fàttali nag eh, suñu bés bi gàmmu annuel bu Tivaouane Peulh trois 3 avril muy neuvième édition bi sous la présence effective de monsieur Abdoulaye Ka suñu euh, responsable moral di ko fàttali nag jigéen ñëpp di di bëgg ñu génn ñoom it ci taxawaay bi ñu daan taxawee gàmm gi rek ñu taxawee ko ñu dugg ci si bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin di ñaan yàlla niñ ko daan taxawee yàlla may ñu kàttan nag mën-mën ba ñu teewee ko at yu euh, comme yeneen édition yi di woo jigéen ñëpp nag mouvement jeunesse yëpp tamit ñu ngi leen di woo daayira Tivaouane Peulh yëpp ñu ngi leen di woo jigéen ñi surtout dañu bëgg ñu génn def seen déguisement yu weex niñ ko daan defee teg ci seen col yu rose ren édition bi loolu la laaj loolu lañ ko bëggee taxawee macha allah di ñaan yàlla di ci yàlla nañu may kàttan ak mën-mën ba ñu dem ci ci bismillah rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin di woo jigéen diaspora bi yëpp jigéen ñu Tivaouane Peulh yëpp ñi ci àll bi ñëpp yit ñu ngi leen di woo ku ci mënul teewee euh, édition bi ñu ngi lay ñaan nga jàpp ko ci Cherif Dabakh TV di nga ko gis en macha allah direct lañ koy def ñëpp dinañ ko mën a seetaan en direct di gërëm gërëmaat nag gërëmaat bu baax suñu responsable moral di ko ñaanal wér ak gudd fan mu yàgg ñu ko jiite ci barki salaatu fatiha ñu ngi ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp. jërëjëf Adja Aïda Sy moom ngeen dégg lool moo woo ci waa diaspora bi ak jigéen Tivaouane pël yëpp dañu jox nag euh, Adja Dieynaba Ba moom it moo woote ci turu jigéeni Tivaouane Peulh et environ et environ nag mooy dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo wër tiwaawoon Peulh ci la ñu bokk. awuzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim sama mbokk jigéeni Tivaouane Peulh yi bu nga déggee kàddu yi mooy dina fàttali gàmmu 3 avril fii ci Tivaouane Peulh. maa ngi ciy woo saa mbokk jigéen Tivaouane Pël yëpp bàyyuma bàjjenu gox yi bàyyuma relais yi maa ngi woo waa Mbambilor waa Déni waa Gorom 1 Gorom 2 waa Déni géej déer Biram Ndaw waa bënd ba kër Mayla Mbeng Tëngéej fii ba bënd ba bàyyiwuñu kenn képp ku dégg woote bi rek xamal na mooy sa invitation bàyyiwuñu waa waa Ndukura tundu jandeer bi yëpp bàyyiwuñu kenn Tëngéej kër Njaayloo Kuunun waa Kër Massar waa Jaxaay yéen ñëpp bu ngeen déggee woote bii ngeen mooy seen invitation gàmmu bi ñuy def chaque at bu jot bii mooy juróom-ñeenteeli at ñu di ko teewe képp ku fi ñëw aaj bu fi waay indi yal ko suñu borom nangu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ku fi ñëw indi jàngoro yal na ko suñu borom faj ko fi indi euh, soxla tamit yal na ko suñu borom faj ci barke borom guddi gi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf soxna moom moo doon woote ci turu jigéen ñëpp waaye it suñu responsable moral ba di mu xaddam bu mag ba Thierno Abdoulaye Ka ne ma ngi ciy woo soppeem ba xaritam ba ah ti léppam nag di Thierno Amadou Ba di xalifa Jibril Ba ca Mbambilor di ci woo nag Serigne Maodo Gaye ah moom it ca Daaru Salaam Gaye nga xamante ni tam xaritam la soppeem la seexam la kon nag dañuy jël kàddu gi rek jox ko nag ki nga xamante ni moom mooy lépp sëriñ bi. di loxo ndeyjooram di loxo càmmooñam yore amee li nga xamante ni moom mooy organisation bi yépp bépp kayit boog nga xamante ni dañ koy lijjanti ci gàmb gi ak relation yi nga xamante ni ñoom la ñu war a jox yépp nag dañ koo jël nag dénk ko nag Momar Diop kon moom la ñuy jox kàddu gi aouzu billahi min alseytaani rajim bismillahi arrahmani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp Euh, di woon wax leen li ñuy commencé mooy gàmm gi nga xam ne moom la ñuy def Tiwaawoon Pël ci àllarba ñetti fan ci weeru avril bii ñu nekk euh, organisation bi nag ci laa bëgg a wax balaa mu yegg tey ci àjjuma ji dañuy def xadratul juma bu ñu paree ci xadratul juma boobu le 2 war nañoo def set setal boo xam ne ci dëkk bi lañ koy def ñu ci woo xale yi dëkk bi yépp ñu génn massivement jàppale ñu ci set setal dëkk bi ba nga xam ne gan bu fi ñëw benn bant du ko jam loolu la ñu bëgg bu loolu jeexee ah ñu commencé gàmmu gi ci le 3 le 3 boobu nag am na cérémonie cérémonie bi nag mu ngi commencé maanaam 16 heures war nañoo nekk sur place invité yi ñëw ñu nekk sur place bon 16 heures 30 euh, cinq moom moom la euh, président bi maanaam suñu kilifa ci la war a yëkkati baatam pour dalal gan yi bu ñu paree nag 17 heures yooyu war nañoo commencer programme bi nekk ci. programme boobu ba nga xam ne yegg nañ ca julli timis ba paase ko sax tuuti ah, ci pare nag ca fa la ñuy yem ci li nga xam ne moom mooy cérémonie bi ah léegi nag ñu jóge foofa ñëw delluwaat ci dal yi bu ñu delloo ci dal yi xéewalu ba pare julli bu ñu paree ñu delluwaat ci baas ba pour nag dem ci li nga xam ne mooy gàmmu gi gàmmu gi nag ni ko ñëpp waxee la rek euh, dafa nekk am particularité boo xam ne daf cee nekk ñu tuddee ko suñu wasila boo xam ne muy bàyyi xalifa Gaye di bàyyi ci ki nga xam ne mooy tafsir Abdourahmane Gaye waaw kon nag particularité la boo xam ne euh, ñun moo tax ñu ngi ci woo ñëpp bu boobaa nañu gën a góor góorgóorluwaat gën a jàpp man ni ma koy waxee toujours ñu fexe ba nga xam ne gan yi ñëw suñu ñëwee yegg si fii ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm bu ñu gis lenn lu leen naqari bu ñu gis lenn loo xam ne bu ëllëgee bu ñu demee mu doon suñu lu ñu mun a wax ci suñu gannaaw kon ñun ñëpp nañ génn tu nañ jàpp la ñu war a jàpp dimbale jàppale ki nga xam ne tey boo gisee tey gàmmu gi taxaw fii tey sababam la muy oustaz Abdoulaye Ka moom la sababam moo ko def mais ba mu ko defee def ko def teg jël ko lépp ne dëkk bi mu ngi noonu waaw léegi nag moo tax ñu ne waa dëkk bi yëpp nañu génn ñu ñëw ñu xam ne lépp suñu moom la moomeel la comme suñu moomeel la nag nañ ca def la nga xam ne moom moo ñu war taxawu ci bu baax a baax képp ku gis gan fu mu mën a toll jàpp ko comme sa gan la dimbale ko jàppale ko teete ko ba mu yegg ca baas ba mun faa toog fanaan fa ba bërset ñu yàlla ñaan yàlla suñu borom li nga xam ne moom la ñuy ñaan ci atum ren bi yàlla nangul ñu ko nangul ko mbooloom jullit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 waa fédération sëñ Maodo si fédération sëñ Maodo Sy ibnu maam Abdou Aziz Sy Dabakh maam Alaaji Malick si fédération bi nga xam ne bopp ba Cheikh Ahmed Tidiane moo ci ne ñu ngi woo ñëpp nag membre fédération yëpp région yëpp ñëw teewe gàmmu gi imam ka di woote at mu jot ci ndigalul sëñ Maodo Sy ibnu maam Abdou Aziz baax na ko ñëpp teewe ci barke nabi Moustapha alayhi salaatu wasalaam màggal gudd gi tagg rasulillahi alayhi salaatu wasalaam wasalaam bëgg gan kon nag dañuy jox kàddu gi nag suñu responsable moral dañuy jox kàddu gi nag mu xaddam bi nga xamante ni ah ci loxoom nag la yàlla jaaral tey jii ba fii ñu toog ci Tiwaawoon Pël ñi ngi xadara ñi ngi wasifa te lépp ci loxoom la ko bàyyee loolu doyatul nag mu tànnal leen nag guddik yonti yàlla Muhammad ñu di ko màggal at mu jot le trois avril mooy nekk gàmm ga kon nag dañuy jël nag micro bi rek dénk kon nag mu xàddam boobu ñu woowee Thierno Abdoulaye Ka nga xamante ni fii ñu nekk ci Tivaouane Peulh moo fi téye nag njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick moo leen fi toogal noonu nag ñu jox ko kàddu gi moom it. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalq sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin Eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu eh, mbokk yi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa eh, ñu ngi leen di nuyu waaw di leen ziyaara di leen ndokkeel di dellu di santaat yàlla yàlla mi nga xam ne moo ñu mayaan ñu fekkewaat ren bay waajal guddi gi di guddi rasulullahi sallallahu alayhi wa di waxe nag ci kaw ndigal ndigalu suñuy kilifa di alxalifa sëriñ Babacar si ak njabootu Seydil Xaaji Malik yépp ak ci turu suma sëriñ sëriñ Maodo bu Seex Alxaaji Abdul Aziz ci turu yooyu lañuy ñuy waxe e, wax bi nag mooy woo jullit yépp woo jullit yépp ci lii nga xam ne mooy gàmmu gii nga xam ne moom la ñuy def di ko def fii ci Tivaouane Peulh di sant yàlla nag ndax li ñuy sant yàlla mooy at yi weesu benn koo xam ne yàlla def na ko muy silmaxa moo ñu wax ne gàmmu gi gis na rasulullahi ak saxaaba yi di wàcc muy jooy jooy yu metti jooy yu metti mu ne bi mu demee ba guddi gi sore moo gis ay naar yu sol yére yu weex tal karaw gi di daanu seen mbagg ñuy céppeelu si baas bi mu wax lu yéeme ne na kii nga xam ne moo mujj wàcc dafa soppeeku bu mu nekk jëmmi sëriñ Abdul Aziz Sy Dabakh muy wax ne àndaleen ak ak yar yokkaat leen rasulullahi mu ngi waaj a ñëw nee mu mel ni dañoo xotti asamaan si mu gis ku toog si der der bi di wàcc am ñu koy wër nee nañu annoncé ne rasulillahi ñëw na si bés xam nga loolu firnde bu rëy la ñu sant si yàlla moo tax ñu bëgg ñépp ñu xam ne ñun li tax ñuy def mooy indi muhammad si Tiwaawan Pël e, ngir ñépp mën a barkeeru si moom e, di woo nag kilifa diine yépp ndax kilifa diine yépp benn lañu te ñu ngi si sant yàlla nag at bu jot bu ñu gestoo dinañu gis turuq yi yëpp wax turuq yi yëpp dañ leen di gis njabootu boroom borom Touba mbàkk mbàkk yi njabootu laayeen yi njabootu xaadir yi ñoom ñëpp danañu teew même chrétiens yi sax woo nañ leen réception bi at bu jot jàngu yi dañuy ñëw ànd ak ñun ci réception bi ndax ñu yëg ne ñun ñëpp Ah, ñoo bokk Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk àdduna bi rawatina ñun ñëpp ñoo dëkkandoo fii si Tivaouane Peulh eh, di sant yàlla it ñaan yàlla loolu yàlla na sax e di sant nag boroom télévision bi di Chérif Ibrahim Haydara at Tijani ndax moom mooy jëmmal bés bi di dereti yonent bi te Chérif yàlla dogal na bi mu tàmbalee ñëw si gàmm gi dana ma Ablaye gàmm gi suma gàmmul te yaakaar naa ñun li ñu am yëgaguma ne ñun Tivaouane kenn am na ko ci Cherif ndax ñëpp teewe nañu keroog ba mu ñëwee soxnaam yi doomam yi mu ne ma Ablaye suma njaboot yëpp a ngi nii tëj naa kër gi ngir jëmmi yonent bi ak jëmmi cofeel bi ma am ci Tivaouane Peulh ak Cheikh El Hadji Abdoul Aziz bi ñu bokk Cherif yàlla na yàlla guddal fanam ndax shérif kat ñeent yii yëpp gis nañ ko ci moom shérif am na fulla shérif am na fit shérif am na xam-xam te li mu am doy na ko te taxawu na nag lislaam bi taxawu na tariqa yi rawatina njabootu Sidil Hadji Malick bon ñun shérif mënuñu ko fay dene woon nañ ko bàyyi mu mu jël lépp ñu ne ko nag laa lool nag ëpp na waaw moom kay mën ngaa defit ñu ni ñu barkeelu bon it ñu ngi koy gërëm si e turu waa Tiwaawan Pël yëpp ni mu bàyyee xel tiwaawanpël di ñaan e telem bi yàlla na gën a yaatu yàlla na gën a tas ci àdduna bi e di sant yàlla nag di julli ci yenent bi di wax ne ñépp woo nañ leen rawatina xale yi dëkk Tiwaawan nekk ci diaspora bi te bés bu ne ñu dégg ne ñu ngi leen di ñaanal yàlla waaw ku mën a ñëw ñëw ku mënul ñëwit serif dimbali nañu may nañu ne ren gàmmu gi en direct lay doon en direct ci àdduna bi ku bëgg suivre gàmmu gi tàppeel Chérif Dabakh TV incha allah dinga nga mën a seetaan gàmmu gi e niñ koy tàmbalee ba ni mu jeexe kon nag di gën a santaat rawatina ñiñ fi fekk mooy borom dëkk bi di alaaji buubu saw tëng xam luwul dara rawatina imaam alsan moom mi nga xam ne mooy imaamu raati bi yaatal borom xam-xam yi yépp ci Tivaouane Peulh lépp lu ñu woote moom moo siy jiitu ñoom ñoo ñu yaatal waaw waaye di santaan ni ko soxna Kumba Ndiaye waxee ndax bu baaxee rek am na ñu si jàpp rawatina borom réew mi ak ministre bi mu bàyyi fii di Omar Gueye mooy suñu ministre at bu jot lu ne am na boo xam ne président woo na ko sax waaye dafa ñëw fii woote foofu ne dafa am gàmm keroog fii la fanaan ah loolu yëpp seede la dafa rafet ñu wax ko ndax nit bu dëkkee si gox waroon a yónnee waaye day bàyyi léppam jël alalam yëpp bi monsieur Omar Gueye ah ñu ngi koy ñaanal yàlla si na muy yëge goxam bi tënxam luwul dara ak rakkam ji Ndiagne Diop di député maire suñu maire it moom kooku dañ koy ñaanal yàlla wax dëgg yàlla gàmmu gi xaalis bu bare at mu ne mu génn xaalis bu bare di Momar Soxna Diop ak ñi nga xam ne ñoo ko war ñëpp Boubacar Ba Boubacar Ka Ibrahima Ndoy ak ñi ko wër ñëpp danañu bàyyi seen itte ci réception bi waaw di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla defal leen ndam te lii rek lañu si doon wax di ñaanal xalifa yi yàlla leen yàlla bàyyi si Sénégal ñu yàgg fi te guddal seen fan di yàgg di ñu ñaanal lii daal la ñu si doon wax di ñaan yàlla te yàlla nañu yàlla dimbali ñu xam ne guddi gi niñ ko waxee ki ñu ko tuddee dañu amul luñ ko fayee mooy Tafsir Abdourahmane Gueye juróom-ñeenti at. croix la def trois avril mooy veillé 4 avril daf ko crois ne fii moom bu ma fi kenn wax benn programme tafsir bon bu way juróom génnee àdduna amuñu luñ ko def lu dul jagleel ko ko jaale ko ko jaale ko ko ndax defal nañu loo xam ne wax dëgg yàlla ak xaritam bi Abdallah Fall ah, wax dëgg yàlla mënuñu leen fay waaw di si eh, sakkuwaat ñaan si suñu ñooñu génn àdduna di soxna faatuka bu ngeen xoolee carte bi moo jiite woon daa daayira yi mboolem luy ndugg. mooy dem faatu ibu kaax la ñuy wax ah yàlla na ko yàlla jéggal ak ki nga xam ne mooy porte parole waalo waalo yi ki nga xam ne mooy Mor Ñang waalo waalo yëpp xam nañ ko alaji Mor Ñang yàlla na yàlla yokk leeram ak Souleymane Jeeju jiite joolaay ñoom ñëpp dañ daan mobiliser waaw ah, joolaay yi séeréer yi pël yëpp ay daje ñuy tooñante si biir bon nag ñoo ñu ngi leen di jaale di ñaan si barke yonente bi e si barke gàmmu gi yàlla na yàlla yóbbu leen aljanna asalaamualeykum wa rahmatullah irxal li taybata irxal li taybata la ta umma siwaha fa asaaka an taxza bi ruyati taha fa ida wasalta laha iktahil min turbiha huwa ismidul aynayni wa huwa jalaha daarul xanaa وكذا الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها هي طيبة تابت لطيب أصولها ومدينة رب سما سماها هي منية الألباب مفتاح الهدى فانهت إليها واغتنم للقاها هي درة بيداء خالصة ترى فعليك أن تسألها فتراها فالعين قرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما أتاها والقلب قد سكن اضطراب لهبه لما رام في البقاء سواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها